ok incha allah incha allah ñu ngi war a jël tey aaya cent vingt huit ci suratul an'am fi suñu borom di waxee ni wa yawma yaxshuruhum jamia ya ma'shar al jinn wa ya ma'shar al jinn alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mbokk yi ñu ngi yeesal santar suñu boroom jalla waala bi ñu wërsëgalaat ñu daje ci am néegam fas yéene jël benn bind ci ab téeréem loolee di jaamu yàlla gu màgg gu ñuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaax ci gërëm nga ko yàlla gërëm ñu ngi ñaan yàll na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko mboolem ña koy déglu fu ñu mën a nekk ci kaw suuf it yàll na yàlla boole ñu ñoom ci ñi muy xamal diine ji wërsëgal leen ñu tapp ko te fayal ñu ñi nga xam ne ñoom ñoo dox suñu diggante ak ñoom ci groupe yi aju ci jàkka jeeg suñu télévision Islam TV ak képp koo xam ni yaa koy tasaare ñu ngi nekk tey ci ñaar fukkeelu fan ci weeru shawal ci 1444 muy dëppoog le 10 mai ci 2023 kon incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na mu dellal ñu suñu bindu bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الجن وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعد الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وورتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون
barakallahu fikum suñu boroom jalla wa ala mu ne wa yawma yaxshuruhum jamia bis bam leen di dajale mboole seen yaa ma'shar al jinn borom bi ne ay yéen mboolum jinne yi maachar arab da koy wax mbooloo mu safantikoo qad istaksartum min al ins yéen day bari le woon ngeen ci nit ñi ay ña ngeen ci réeral wa qaala awliyaauhum min al ins noonu lay waxee ñe féete woon ak ñoom ca nit ña rabbana stamtaa baaduna bi baad ey yàlla lenn ci ñun da doon bànneexoo la ca des rek wa balaghna ajalana allazi ajjalta lana léegi nag jot nañ dig ba ñu dig ba nga xam ne digoon nga ko ñeel ñu qaala naaru maswaakum mu ne sawara day mooy seen wàccuwaay xaalidiina fiiha ngeen sax fa ba faw illa ma shaa allah xanaa lu dul lu neex yàlla inna rabbaka hakimun alim sa borom yàlla mooy ki xereñe mooy ki xam lépp wa kazalika nuwalli ba'da zalimina ba'da naka nii day la ñuy féetale lenn ca toonkat ya ca kaw la ca ca ñeel ña ca des bima kaanu yaksiboon ca lañ nekkoon di ko faggu yaa ma'shar al jinni wal ins e yéen mboolum jinni yi ak nit ñi alam yaatikum rusulun minkum ndax dikkalu leen woon yonent yi bokk ci yéen yaqussuuna alaykum ayaati ñuy nekk di jàng ci yéen di leen nettali samay aaya wa yunziruunakum liqaa yawmikum haada ñu leen di xupp di leen moytuloo la nga xam ne mooy dajeb ba ngeen di dajeeg man ci seen daje bi ngeen war a daje tey mi ngi nii ci bisu tey bi qaalu shahidna ala anfusina ñu ne ay ñun dey seede nañ ci sun kaw bakkan wa garratuhum alxayaatu dunya doonte ne waroon na leen dundug adduna gi wa shahidu ala anfusihim noonu lañu seede ci seen bakkan ya annahum kaanu kafirin na ñoom day nekkoon nañ ay yéeféer zalika an lam yakun rabbuk li waral lool day du nekk mukk sa boroom muhlikal qura di aji kuy alak la nga xam ne ni mooy ay dëkk bi zulmin ca tooñ ya ñuy tooñ wa ahluha ghafiluun fekk na waa dëkk ba ñoom dañoo doon ñu saggan kenn musu leen a waar mi ngi noonu bokk julit suñu téere bi du deñ dañuy fàttali benn réalité bu nekk suñu kanam te mboolem ñi gëm diine gëm ko mbokk adduna bi dañu fee jaar waaye bis day mës a ñëw mu jeex suñu borom yàlla nag tànn benn bis boo xam ne dana dekkal mboolem ñi mës a jaar ci kaw suuf su leen dekkalee dana leen dajale muy nit ñi ak jinne yi nga xam ne ñoom ñoo yeyoo mbugal yeyoo la nga xam ne mooy pay suñu borom jàkkaarloog jinne ya ñoo ñi nga xam ni am na ci ñu baax ñu bon am ca yéeféer ay niti bida comme niñ ko waxee muy machar borom bi subhanahu wa taala ne leen yéen day bari leen ngeen lool lu ngeen réeral ci nit ñi ci noonu lay waxee ña nga xam ne ñoo leen doon féetewoo ne ah yàlla day li amoon mooy jinne yi dañ doon bànneexu ci ñun ñeneen ñuy bànneexu ci ñoom ca mbokk nañu xam ne jinne suñu moroomi mbindaa fan lañu yàlla indi leen ci kaw suuf comme nim ñu fi indee sant leen ñu jaamu ko comme nim ñu ko sante mu am ca ñoom nag ay shayatin ñoo xam ne la leen itteel mooy fexe ba réeral doomu aadama yi nan lañ leen di réerale mooy dafa am lu bari lu jinne man ca nit mënu ko jinne yi yàlla may ne leen ñuy mën a naaw kaw asamaan looloo tax mu am yenn xabaar yu ñu fa doon sàcc te loo xam ne bu neexoon yàlla du am waaye nag yàlla may ne leen ko léeg-léeg ñu mën a xam yenn xabaar yu ñuy jox seen buxaaba yi ñu boole ca seeni fen bu ko defee ñu mën a wax lenn loo xam ne nii ci kumpa day am ñaareel bi mooy seen gaawaay jinne mën na dem fii léegi Conakry jël si waat loolu moo tax ba ñiy mën a am ay xabaar yoo xamee ni nii doomu aadama yi duñ ko xam am na ci ñu bëri ñu ñuy sàccal alal gannaaw bi it yàlla may ne leen ñu mën a dugg ci doomu aadama am na ñoo xam ne nii dañuy dugg ci doomu aadama dofloo ko yàqal ko lu bëree bëri su ko defee nit ñu bon ña nag ñoom la ñuy collaborer ak jinne yi di defal jinne yi la leen neex lan moo neex jinne mooy nga def ak kéeféer koo dégg ñu koy soow ci njabar waatal na am ne kéeféer gu muy def même buñ ne mooy imaamu jumaa ja aka bëri ñoo xam ne ay kaamil la ñuy suul di ca saw aka bëri ñoo xam ne la ñuy bind ci ay ay ay xaatim ay deretu règle lañ koy bindi aka bëri ci ñoom ñoo xamee ne ni dañuy faat ay waxtu aka bëri ci ñoom ñoo xam ne ni ay bakkan lañuy lañu lañ koy yoolee moom lañ koy jëndee te muy jinne fokk nga def ak kéeféer mu dog laa defal li nga def istamtaa baaduna bi baad ku nekk ci ñun da doon sàkku ca moroomam loo xam ne ni moom lay bànneexoo léegi nag yàlla jot nañu dig bi nga xam ne dig nga ñu ko te lii lépp lu taxoon ñu koy reconnaître yàlla wax na ko ci yeneen aaya fëllan fa hël lana ila maradin min sabil ndax yàlla man nga ñoo may ñu dellu nangu nañu ñoo tooñ ndax man nga ñoo may ñu dellu mbokk foofu reconnaître tooñ du fa jëriñ reconnaître tooñ mi ngi jëriñ fii ci kaw suuf et yow njabarkat bi mën naam rey nga nit tas nga ay sëy yu dul jeex dafloo nga ay nit ñu dul jeex waaye adduna bii moom boo teelee tuub teel a toroxlu dellu ci yàlla yàlla subhanahu wa taala bal la amma alaxira reconnaître fa say bakkaar du la jëriñ dara moo tax borom bi dum leen di wax sawara day mooy seen wàccuwaay yéen jinne yi ak nit ñi ngeen réeraloon ñépp xanaa lu dul lu neex yàlla am borom xam-xam yu ni illa ma sha allah ay lu dul ña nga xam ne yàlla da leen wërsëgal ñu tuub avant ñuy dee am ñu ni illa ma sha allah mooy ña nga xam ni seen jëf ju bon dañ doon def yeggul ci nekk kufru wala shirkul akbar bu leen génn ci diine ñooñu loolu mën na leen dugal sawara la soob yàlla gannaaw ba yàlla génn leen borom bi nag daa di ne xamal ne ni sa borom yàlla day mooy hakim lépp xam na lam yeyoo mu tege mu teg ko fa te it moo gën a xam la nga xam ne mooy jaamam suñu borom nag ne mi ngi noonu ñii nga xam ne ñooy tooñkat yi yàlla da leen di booleeg tooñkat ñu mel ne ñoom ñi féetewoo leen te mbokk suñu borom moom la wax ne wa man yaxshu an zikri rahman nuqayyid lahu sheytaanan fa huwa lahu qarin képp ko nanguwul déggal yàlla neutre moom munta am boo déggalul yàlla rek da nga déggal sa moroomu jaam mu lay digal lu gën a métti la yàlla subhanahu wa taala santaane te aka bëri ay doomu aadama yoo xam ne bi leen yàlla ne julli leen woor leen aji leen defuñu ko ña ngay dem di defal seen moroomi jaam loo xam ne moo gënoon a métti fuuf fuuf la nga xam ne mooy julli gaag woor ga te mooy tooñkat yi noonu la leen yàlla di féetale moo tax it borom xam-xam yi di wax ne xeet bu nekk buur ya mel na ñoom rek la ñuy am mi ngi noonu te loolu bañ koy wax boobu sax démocratie yi ñu xewal amagul te mooy tey dañoo gis réew mu ne yaay fal sa président looloo tax ba da ngay gis ni doomu aadama bi it war ngaa bàyyi xel ki nga xam ne moom ngay fal xamal ne responsabilité bu rëy nga ci am borom boobu nag subhanahu wa taala dellu woowaat leen ay yéen jinne yi ak nit ñi ndax yéen sawara bii ngeen dugg da leen dikkalul woon yenent yu leen di waar di leen xamal ni bis bu màgg bi mi ngi leen di xaar ñu ne ah kay yàlla seede nañ ci suñ kaw bakkan nañoo toon ay yonenti waaroon nañu loolu it mbokk suñu borom mu ne wa ma kunna muazibina hatta nabaasa rasula bépp xeet boo xam ne musuñu am yonenti bu leen waar diine musul yegg ci ñoom yàlla du leen jël rek dugal sawara fokk dana leen nattu yowmal qiyaama yónnee ci ñoom ndaw boo xam ne dana leen jox ay ndigalam ñuy weddi yàlla dogalee na lakk waaye yàlla du lakk mukk ab jaam ca amul ko ko waar borom bi nag ne ñii day li leen dugal sawara gannaaw bañ leen waaree mooy dunduk adduna moo leen nax ca mbokk adduna ngi noonu day naxaate da nga ciy nekk ni mébét rek loo am yaa ngi séentu la ca gannaaw di dang dangi fàtte alaxira te mooy li ëpp ci doomu aadama yi tey dañu nekkee dama jëlale yéeféer ya waaye xatta ñi gëm alaxira boo xoolee seen doxaliin dañoo fàtte alaxira projet adduna mooy la nga xam ne moo leen war noonu la ñuy seede ci seen bopp ne dañoo nekkoon ñu weddi borom bi nag subhanahu wa taala nekkoon sa waraangoo xam leen ne seen borom yàlla day du jël mukk ab dëkk alag leen fekk ne waa dëkk ba dañoo doon ñu sàggan kenn waaru leen waaye képp koo xam ne waar nañu ko mu fittéerlu ku mel noonee suñu borom yàlla am na lay ci sa kaw mi ngi noonu kon Cheikh Ousmane
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستغفر من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآن وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
barakallahu fikum waaw xam naa ñu ngi jéggalu de ci loolu suñu borom jalla wa ala day wax ni wa li kullin darajatun mimma amilu dana ñeel képp kenn ci ñoom la nga xam ne mooy ay wàccuwaay ca la nga xam ne moom la ñu faggu woon wa ma rabbuka bi xaafilin amma yaamaluun sa borom yàlla day moom du nekk mukk di sàggane te la nga xam ne ñu ngi ko doon jëf wa rabbuka alxaniyu zu rahma sa borom yàlla mooy ki woomle mooy borom yërmaande ji in yasha yuzhibukum su ko neexee mu jël leen yóbbu leen mi ngi noonu wa yastaxlif min baadikum ma yasha daa di wuutal ci seen gannaaw la nga xamee ni nii moom moo ko soob kama anshaakum ma yash kama anshaakum comme ni nga xam ni noonu la leen sosi min zuriyati qawmin axarin ngeen jóge ci njabootooku ñeneen ñu dul yéen innama tuaduuna la aat liñ leen di dig dey loolee luy ñëw la wa ma antum bi mujizin te yéen nekku leen mukk ñoo xam ni ñuy mën a mucc ngeen doon qul ya qawmi amalu ala makanatikum neen ay yéen saw xeet na ngeen nekk di jëf ci seen place inni amilun man maa ngi nekk di jëf fa sawfa taalamuun kala sa ngeen a xam fa sawfa taalamuuna man takunu lahu aqibatu daar ana kan lay ñeen lii di mujj kër ga innahu laa yuflihu zalimun li am day mooy du texe mukk li di tooñkat ya mi ngi noonu bokk kon suñu boroom day wax alaxira mi ngi ñëw adduna ji suñu boroom dañoo teqale ay daraja yu dul jeex benn waaye ngay nekk milliardaire dëkk ca palais ya benn waaye ngay bu añee du reer dëkk ca néegu ñax ya seen diggante lu ne nekk fa suñu borom nag mu ne xoolal ni ma leen gënalee ci àdduna wala al axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila allaxira gën a màgg ay daraja dara jooju it mbokk julit nañu xam ni mooy li ñuy tudde ay wàccuwaay ñooñee nga xam ne ñooy saay saay si ca nit ñi ak jinne ya suñu borom nee na sawara mooy seen wàccuwaay am na juróom ñaari bunt yu ñuy dugge li kulli baabin minhum juz'un maqsum bunt bu nekk am nañu yeyoo dugge foofee lee mooy buntu njabarkat yi buntu agresseurs yi buntu buur yu bon ya buntu ña doon jaay seen bopp buntu buntu ba muy nekk juróom-ñaari bunt amma bu dee nit ñu baax ña suñu borom yàlla dana leen tabbal aljanna aljanna am na juróom-ñetti bunt borom bi def ko téeméeri daraja ci doomu aadama yi niñ doon liggéey ci kaw suuf amul looy def ci lu baax lu dul am na daraja bu mingool nga dëkk fa yowmal qiyaama ba baa ngay dëkk firdawsil aala nga xam ne dara tiimu leen lu dul arsh rahman yal na yàlla def ko suñu wàccuwaay borom bi it mu ne loolu ñeel na leen ngir li ñu liggéeyoon te it mbokk lii mooy li gën a jafee dugal ci bopp nit ñu bëri commencé ci diine yi jiite woon ba baa diine lislaam doomu aadama yu bëri seen diine mooy lan mooy am yaakaar ci suñ caam wala am yaakaar ci suñ sow jàpp ne loolu mooy tax nga texe àllaaxira waaye mbokk suñu borom yàlla suñu texe ak suñ texe yépp mi ngi ko teg suñuy jëf doomu aadama kenn du ko condamné àllaaxira ngir sa baay wala sa kum mën a doon daa defoon lu bon doomu aadama kenn du ko teral àllaaxira ngiree sa baay wala kenn daa defoon lu baax ku nekk say jëf lañ lay fayee borom boobu nag jàll wa ala ni sa borom yàlla day du sàggane li ngeen di jëf te loolu it maadaama yow doomu aadama sa dund gu gàtt gi moom mooy doon loo xam ne nii mooy saxal teraanga ba faw ñel la alaxira wala toroxtaange ba faw ñel la alaxira sa borom yàlla nee na sàggane wu ma lenn ci li ngeen di jëf ci guddi ci bëccëg ci mbooloo mi ci nëbbu dara réeru ma ci loolu mooy al ihsaan bu jullit di war a yéeg ci boppam fu mu mën a toll borom boobu it di nga xamal ni yow yenenti yàlla bi wa rabbuka te loolu it julit du ko fàtte mukk wa rabbuka ay yow yenenti yàlla bi yow sama jaam bi rabbuka sa borom mooy julit ñi dañuy seeda daiman wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yenenti yàlla muhammad jaamu yàlla la dañoo war a ànd ak moom jaamu ji yàlla waaye lenn lu aju ci jaamu yàlla kenn waru ko koo defal kenn du ko yaakaar kenn du ko nekk di ko ragal kenn du sukkandiku ci moom yàlla rek la ñuy jagleel loolu sa borom boobu nag mu ne mooy alxaniyu mooy ki woomle moom rek mooy ki woomle keneen ku dul moom dafa aajowoo antumul fuqaraau ila allah wallahu huwa alxaniyu alxamid asamaan ak suuf malaaka ak nit ak jinne ñépp aajoo seen borom ci tarfata ayin doomu aadama bu la yàlla bàyyi woon lu gën a néew rek alku nga naka noonu itamit lii mu ñu sant ci diine ji ndax dafa am lu ko ciy jëriñ la wallahi julli gi soxlawu ko koor soxlawu ko aj soxlawu ko huwal xani lépp lum ñu sant suñu intérêt rek la lum ñu teree suñu intérêt rek ca nekk doonte ne it mooy zur rahma borom yërmaande ji nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tiim ni ñu koy waxee téeméeri yërmaande la yàlla bind benn yërmaande la séddale ay jaamam quatre-vingt-dix-neuf yërmaande yépp mi ngi koy jagleel waa ajjana yal na yàlla boole ñu ca mooy zur rahma bi nga xamee ni itamit daa bëgg yërmaande mooy yërmaate bëgg yërmaande bokk na jaam yi mu gën a bëgg mooy jaam yi am yërmaande bokk na jaam yi mu gën a bañ mooy jaam yu amul yërmande moo tax yonent bi alayhi salaam jox ñu ci ñaari extrême exemple yoo xam ni ku ne war na ci bàyyi xel nee na yàlla dana dugal ab jaam boo xam ne ku sàgganoon la waaye yàlla dana ko dugal aljanna ngir yërmande bu mu amoon ci ab xaj benn jigéen ni ngi nii yàlla dana ko dugal sawara ngiree ñàkk yërmande bu mu amoon ci benn muus tëj ko ci benn place ba mu dee yenent bi waxul kii daa am yërmande ci nit sàngam wala góor sàngam wala jigéen sàngam mu indi xat ak muus waaw ki nga xam ne yërmaande ba mu am ci ab xat te la ko yàlla yërëme ba tabbal aljana waaye ci am yërmaande ci doomu aadama yi nag moom ki nga xam ne ñàkk yërmaande ba mu ñàkk yërëm muus te la ko yàlla dugal sawara waaw ki amul yërmaande ci doomu aadama yi nag borom bi nag ne su ma neexee yóbbu leen indi ñeneen ñu dul yéen comme ni ma leen sose ci njaboot goo xam ne bokkuñu ak yéen te loolu it bokk suñu borom yàlla ni mu ko digee mi ngi koy def soo demee ci yéeféer yi nga xam ne bi leen yàlla ne gëstu leen seen diine ngeen dund diine ngir ngeen texe dañu faa bàyyi seen diine topp adduna bi ya'lamuna zahiran min alxayaati dunia bokk na ay yi ma gisoon gaa yi di ko def ci jamono 2015 ay xalaatkat gëstukat de par le monde ñu dem ba estimer ni chaque jour 232 000 naissances dana am ci kaw suuf mais àdduna bés bu nekk dana am 232 000 yu judd bés bu nekk dana am 170 000 yu dee yaa ngi dégg bés bu nekk dana am 170 000 yu dee ala kulli xaal mbokk suñu borom noonu la ñuy rompate noonu la ñuy rompate ndax mën ngaa toog une semaine ci dëggoo ko dee déedéet tey suñu inspecteur Samb mi ngi noonu tey rek mi ngi ñu indil ñaari néew seen koñ ah yal na yàlla jéggal ñu yërëm leen noonu la ñuy yàlla di rompate ah la nga xamee ne mooy li certain li wér ci wér moo di ne doomu aadama boo mën a toll xalaatal man day cent ans ci gannaaw nekkuma fi woon cent ans ci kanam du ma fi nekk kon diir bu gàtt rek nga fi am boo koy dund nag day yàgg waaye bu jeexee nga xam ne du dara gis ngeen koor gi biñ ci nekkee caamini bi oh deux jours des na vingt jours quinze jours mais ana koor dem na bis boo dee nga xam ne adduna diir bu gàtt in labistum illa qalila lu néew la borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne maa leen sos ci ñeneen indi leen su ma neexee yóbbu leen xam leen ne it li ñu leen di dig luy ñëw la ci kenn du rëcc innama tuaduna laat wa ma antum bi mujizin kenn du rëcc mbokk amul kenn ci jaamu yàlla yi lu dul bis dana ñëw mu génn ci biir bàmmeelam ay malaaka escorté ko ba taxawal ko ci kanamu boroomam kenn du rëcc innama tuuxadun laat wa ma antum bi mujizin loolu tax yow yonent bi neel sa xeet bi liggéey leen lu leen neex ca place yi ngeen nekk ñu nit ñu ngi liggéey xel sa ngeen a xam kan lay ñeel mujju kër gi da doon ko yàlla yi dimbali ci àdduna waaye la nga xam ne mooy uquba daar kër ga gën a màgg ci kër yi nga xam ne kër dootul am gannaawam mooy aljanna nga noonu waa sawara it seen kër duñu am gannaaw waaye kër gi texe këru texe gi uquba daar fa ñaama uquba daar ñan ñoo ko ñeel muy ñu gëmun yàlla bokkaaluñ ko ak dara baram boobu nag xam leen ne innahu la yuflihu zalimun moo ko tooñkat du texe mukk tooñ bi gën a bon ca tooñ yi dalay xañ texe gu rëy ga mooy bokkaale ak sa borom waaye bokk na ci tooñit man zalama nafsa ku julli jot julli woo yaa ngi tooñ sa bopp de ku dem di naan sàngara yaa ngi tooñ sa bopp de mu amit beneen tooñ bu bon mooy tooñ jaamu yàlla yi kee nga xam ne yaa ngi dem di jël alali jaambur yaa ngi tooñ sa bopp de kee nga xam ne yaa ngi dem di njaaloog doomi jaambur jabari jaambur yaa ngi tooñ sa bopp de képp koo xam ne yaa ngi lépp xaalisub jaamur foo yaa ngi tooñ sa bopp de ilaaxe yaa ngi tooñ sa bopp ca mooy jàpp nga ne sa bopp ngay tooñ waaye sa bopp rek ngay tooñ ndax yowmal qiyaama loolee buñ la réglé mën na laa texee del loolu moo tax ba julit war naa góorgóorlu kémtalal kattanam mucc ci tooñ yal na yàlla musal ñu ci mboolem ñetti tooñ yooyu mi ngi noonu Cheikh Ousmane وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا قالوا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم
barakallahu fiikum suñu boroom subhanahu wa taala mu ne wa jaalu lillahi ña ngay def ñeel yàlla mimma zaraa te la nga xam ne yàlla bind na ko tasaare ko min alxarsi wal an'am te tool yi ak jurga ña ngi tey defal yàlla nasiban ab cir fa qaalu haza lillahi bi zamihim ñu naan lii day ñeel na yàlla te seen njortu ya wa haza li shurakaa'ina lii nag ñeel na suñu bokkaale ya fa ma kaana li shurakaa'ihim la ñeel ña ñuy bokkaaleg yàlla fala yasilu ila allah lool day du jotte yàlla wa ma kaana lillah lañ ne nag yàllaa ko moom fa huwa yasilu ila shurakaihim lool day mooy jotte seen bokkaale ya saa ma yaxkumun aka bon la ñuy atte wa kazalika zayyana li kathirin min almushrikin naka nii day la taarale ñeel ñu bëri ca bokkaalekat ya qatla awlaadihim shurakaa'uhum mu lañuy rey seen doom ya ñan ñoo leen ko taaralal mooy ñooy ñee ñu jël di leen bokkaaleeg yàlla li yurdu li yurduhum ngir ñu alag leen pertuloo leen wal yalbisu alayhim diinahum ngir ñu lëntal ci ñoom it la nga xam ne muy seen diine walaw shaa allahu ma faaluhu donte ne bu neexoon yàlla de ñoom duñ ko def fazaruhum wa ma yaftaruun bàyyi leen ak loolu nga xam ne ñu ngi koy dooral mi ngi noonu bokk dañoo gis ne bokk na ci luy masa yàq diine yu fi jaar yépp mooy jëfandikoo sa xel jàpp ne lii dana war a neex yàlla te mbokk suñu borom yàlla jalla wa ala la nga xam ni mooy diineem ji moom mooy buurub dëgg bi daa bëgg doomu aadama yi def ay ndigalam bëggul doomu aadama yi di ko defal la leen neex bokk na ci loo xam ne nii arab ya bañ yàqee seen diine daanañ ko def dañu daan dem ci tool yi daa di bay ay tool ne tool bi moom lépp lu ci ñore sarax lañ koy génne yàlla lañ koy jagleel yeneen tool yee moom lépp lu fa ñore moom dañ koy jël yóbbu ko te buxaaba ya nga xam ne ñoom ñooy garde xërëm yi jur gi it mu am lu mu ci jagleel ni lii moom yàlla lañ koy jagleel dañ koy bàyyi ba mu dee rek lee ñu jël ko yóbbu ko te buxaaba ya suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ni lii lépp ñoo ngi ko teg bi zamihim ci seen njort ca mbokk zam moo yàq diine ñu jëkk ak ñu mujj ñëpp mooy jàpp ne lii yàlla war na koo bëgg lii war naa neex yàlla déedéet mbokk julit doomu aadama bi diine mooy sami'na wa ata'na dégg naa ndigali yàlla topp naa ko waaye diine du xalaat xalaat bu rafet déedéet borom boobu subhanahu wa taala ni nii day mooy la nga xame ni nii noonu lañ doon def bu ko defee la nga xamee ni nii la nga xamee ni nii mooy lañ doon jagleel seen boroom tey jii bu dee toolu ah lañ jagleel xërëm ya dafa yàqu ñu ne nañ jël toolu bu yàlla bi yóbbu ko kon ci xërëm ya ndax yàlla moom daa woomle amma bu toolu yàlla ba yàqoo toolu xërëm ya baax kenn du jël la xërëm ya moom di ko dox yàlla mbokk loolu da ngay gis ni mbir la boo xam ne nii naam lu jara ak reetaan la waaye lu ëpp ci doomu tey doomu aadama dañuy def lu mel noonu tey ak a bëri ñoo gis tey alal di leen yàlla wërsëgal ne leen génn leen ci zakat zakat boobi musuñu koo génne ci seen alal amma bu dee daje ya nga xam ne ñoom ñoo xalaat créé ko daje ko su ñëwee nga daal di fay dépense loo xam ne mat na ñetti yoon la nga waroon a génn ci zakat lan mooy ces différence ak arab bee nga xam ne da doon def lay muy def ca tool ya amu leen benn différence su ko defee mbokk diine ji nañu xam ne du diiney xalaat bu rafet diine ji mooy diiney topp suñu borom yàlla lim la farataal tant que defuloo ko amul lenn loo ko mën a defal ci naafile ba mu gis ko fokk da ngay def lim la faratal kese loolu leen ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ni lii moo leen yóbbu woon ba seeni xërëmkat yi di leen wax ne sa doom sàngam day mën nga koo reyal xërëm yi doom sàngam mën nga koo reyal xërëm yi te loolu arab yi dañ ko daan def jël sa doom dem rendil xërëm bi ñu ngi noonu yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku ne suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam bàyyim abdullah maamam abdul mutalib moo ne woon yàlla boo ma mayee fukki doom fukkeel ba danaa ko rendi jaamoo la ko gis ngeen yàlla dogal yàlla may ko fukki doom mu waroon a rendi kan abdullah mi nar a jur suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam bañ demee bu xaaba yi na ko li dal ëpp naa def nañ ko jot ñu indi fukki gileem bantale bant bi dal ci abdullah ñu koy def ba téeméeri gileem abdul mutalib doo goree téeméeri gileem ngir jote ko abdullah waaye da nga gis koo xam ne dana am am soxla rek jël benn doomam dem ci xërëm ba rendil ko xërëm bi ngir mu defal ko la mu koy defal loolee mbokk da ngay gis ne ba suñ jamono yi tey da ngay gis ñoo xam ne ak njabar jaral na leen ñuy yoole seen njaboot ñu noonu ñu yoole seen njaboot ngir am lañ bëgg ci àdduna boo xoolee ci buur yi nga xam ni mag ñi xam yenn histoire yi xewoon ci Sénégal dañ naan buur tel ay buxaabaam dañ ne ko woon il faut ci sa jigéen garmi soxna yi nga yor kenn moo ci sacrifice wu ngay doog a nekk buur fokk soxna si mooy dem root bu rootee ndox sangoo lu weex tal te duccee sa ndaali nga jéggi ko root ndaali sangoo ko nekk buur mu wax ko soxnam yu bëri ñoom ñëpp ñu gàntal ba mu dem ci kenn wax ko kooku ne ko ah man de sama doom ji may nampal rek moo ma jaaxal ne kon man yow jaral nga ma ko mu ne ko sa doom ji di jooy yaa ngi dégg ba mu demee ba soxna si def loolu effectivement soxna si daa dee mu nekk buur moo tax kookee nga xam ne mooy doom jooju dañ doon wax naan tey Samba Thiam bu lekkul ma ngay naan yaa yaakaar naa mag ñi xam ngeen li may wax bëgguma tooñ nag waaw tey mi ngi noonu mi ngi noonu loolee mbokk ay mbir la yoo xam ne mbokk ak ceddoo ak njabar yàgg nañoo laaj ay bakkan mu suul leen sacrifier leen ñu ngi noonu am na ay fii ci Sénégal ay buur yu ñuy nettali ne taqe yañ yoroon fa ñu nekkoon nga xam ne seen forteresse ba la pied bu nekk ab jànq la ñuy suul suul ba mu ba mu fees docteur teg pied bi donc loolu mi ngi noonu mooy suroka yi jinne yi yàgg nañoo sant nit ñi ñuy rey seenu njaboot baram boobu nag subhanahu wa taala ni def nañ ko ngir ñu doon ñu ñu leen di alak la mbokk loolee du leen yokk lu dul alak yàqal leen seen diini borom bi jàll wa ala nag mu ni lii day su ma neexoon ñoom duñ ko def waaye bàyyi leen ak la nga xamee ni nii ñi ngi koy ñi ngi koy nekk di ko duural lii mooy la nga xamee ni nii moom la borom bi subhanahu wa taala wax ci loolu def na Cheikh Ousmane teg ñoo jëloon ñu yeggale seen kii bi rek
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين jazakallahu xayra suñu boroom jalla wa ala mu ne wa qaalu haadihi anaamun wa xarasun ña nga naan dur gii day ak tool yi xijrun lii moom dañ koy fekk laa yataamuha illa man nasha kenn du ko lekk xanaa lu dul ñañu soob loolu yi def nañ ko bi zamihim ca seen njort ya wa anaamun xurrimat zuhuruha am na ay jur yoo xam ne dañ ne lii araama nañ gannaawam kenn du leen war wa an amun laa yaskuruuna isma allahi alayha ak jur goo xam ne lii moom buñ koy rey kenn du ci tudd turu yàlla turu xërëm rek lañ ciy tudd iftiraan alayhi lii lépp def nañ ko duural ci kaw yàlla su yajzihim bi ma kaanu yaftaruun yàlla mu ne dana leen fay te lañ nekkoon di ko duural wa qaalu ma fi butuni hadihi al anaam ña nga naan li nekk ci biiru jur gii day xaalisatun li zukurina dañ koy jagleel suñu góor ñi kese ci ñun wa muharramun ala azwajina ara dañ koy araamal ci jigéen ñi ci ñun wa in yakun maytatan bu dee daa doon lu medd nag fa hum fihi shurakaa'u su boobaa góor ak jigéen mën nañ koo bokk sa yajzihim wasfahum yàlla mu ne dinaa leen fay seen melal ya innahu hakimun alim sa borom yàlla mooy ki xereñi ki xam qad xasira allazina qatalu awlaadahum safaha perte nañu rey seen doom yi ci ak ndof bi gayri ilmin ci lu ñu tegul ci benn xam-xam wa xarramu ma razaqahum allah ñu araama la leen yàlla wërsëgal iftiraan ala allah lépp di duural ci kaw yàlla rek qad dallu wa ma kaanu muhtadin ñoom day réer nañu te nekk ñoon di aju jub mi ngi noonu mbokk lii ku mel ni Ibn Abbas danan wax naan soo bëggee xam ndafuk arab demal suratul an'am nga jàng cent trente jëm kaw te mooy bokkoon na ci seeni wax mooy ay tool ak i jur yoo xam ne dañ ne lii moom ñu ñu tànn ci ñun rek ñoo am droit di ci lekk waaye baadoolo yi moom duñu duñu lekk ci lii ñu ngi noonu tool baag nag baag gileem nga buñ ko reyee ñi ñu neex rek ñoo koy lekk moo am ay gileem yoo xam ne dañ daan dem rawatina gileem boo xam ne dem ne ba tëb ba am doom di mën a tëb yeneen gileem ñu daal di koy boyal kii moom kenn dootu ko war kenn dootu ko sëf dañ koy bàyyi ba mu dee rek moo am jur goo xam ne ni moom xërëm yi rek lañ ko jagleel buñ koy rendi it ci turu hubal lañ koy rey wala laat wala uzza waaye kenn du ca tudd turu yàlla gis ngeen mu am jur goo xam ne dañ naan xar mii moom wala nag bii moom lu mën a jur góor rek a koy lekk waaye jigéen du ko lekk mi ngi noonu bis bu meddee nag góor ak jigéen mën nañ koo bokk lekk bokk loolu xam ngeen ak ndaf mun te paase loolu borom boobu subhanahu wa taala mu ne danaa leen melal la nga xam ne nii danaa leen fay la nga xam ne ñu ngi ko doon melal ca itamit mbokk lii lépp mooy diina joo xam ne dañ koo teg ci njoor diina joo xam ne dañ koo teg ci njort su ko defee mbokk kenn doo nga am droit araamal muy yàlla kenn doo nga am droit daganal muy yàlla loolu it yow julit moytul ñu naan la ku sant sant sàngam du lekk nangam loolu ay wax rek la suñu maam yi ñu ko fi indi woon amul benn cosaan borom boobu nag ne ñii nga xam ne dañoo rey seen doom yi te ak ndaf dong nga tax ñu rey ko ndax la tax ñu koy rey imma dañ koo rey ngir ragal ne doom yu jigéen ñi mënuñoo liggéey charge rek lay doon xamuñu ne doom bu jigéen boobu mën na laa indil xéewal gu raw gu la doom ju góor ñi di indil wala boog dañ koo rey ngir màggale ko xërëm bi te loolu lépp pertaange la leen ñeel teguñu ko ci benn xam-xam borom bi nee na araamal nañ la leen yàlla wërsëgaloon ngir duural yàlla jàll wa ala te loolu it nga la waay yow intellectuel bi bàyyi ci xel bokk na ñoo xam ne seeni maam bàyyi nañ fi fanweeri doom seeni baay bàyyi nañ fi ñaar fukkeelu doom mën na am yow yaay sa quinzième doomu baay yàlla wërsëgal la nga nekk intellectuel nekk cadre waaye seytaan na dugal sa bopp na non nekk fi di am juróomi doom juróom benn doom noo leen di encadré noo leen di nangam nangam kon boo amee ñaar doy na mu ngi dën ñett moom c'est maximum déedéet mbokk julit loolee duural yàlla la yàlla yor sa wërsëg yàlla yor sa wërsëgu njaboot njaboot googu xamoo kan moo la ci amal njëriñ looloo tax ba ngalawaay toppal la sa bàyyi toppoon njaboot xiiwulu àdduna la xiiwulu àllaaxira boo ko xañ sa bopp borom bi mu ne xaramu ma razaqahumullah borom bi subhanahu wa taala nag ne gis ngeen de nii la ñuy réere te nekk ñoon di aju jub na am mbokk julit lii mbir la yoo xamee ni nii lu bëri ci doomu aadama yi tey dépassé nañ ko waaye forme bi mooy changé waaye jubluwaay bi benn la képp koo xam ne sa diine lan cay jëfe jógewul ci texte alquran ak sunna xamal ne fu mu mën a jóge rek dóoral la bu ñuy dóoral yàlla te ki nga xam ne day dóoral yàlla loolee du mën a texe mukk ci kanamu borom bi yal na yàlla tënkuñu ci lislaam xamal ñu suñu diine wërsëgal ñu dund ko musal ñu ci lépp luy bidaa ak shirk wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax ki nga xam ne dafa dugg jàkka dafa war a nuyu waa jàkka ji yépp wala ñi mu sësal rek lay nuyu déedéet mbokk julit dugg ci jàkka taxaw ci buntu wa salaamaaleykum ñëpp ne la maaleykum salaam loolu nekkul loo xam ne sunna la boo duggee ci jàkka da ngay ñëw fa nga xam ne fa ngay toog di fa di fa julli dara nekkul nga wax leen salaamaaleykum mu dee ne it gis nga mbokk yu bariwul ay nit am nga nit ku romb mu toog nga ne ko salaamaaleykum loola dara newu ci mais nit ñi nekk ci jàkka ji bari ñii ngi julli ñii di jàngal quran ku dugg rek na asalaamaaleykum ku dugg na asalaamaaleykum loolu déedéet salaamaaleykum mi ngi yem ci ñi nga xam ne da nga sus ak ñoom wallahu subhanahu wa taala alam naam ah naam ala kulli xaal kon mbokk insha allah ñu yeme ni foofu ñaan suñu borom yàlla jalla wa ala nangul ñu niñ fi jot a jàng ya dajale ñu waat fi ci jàmm wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain naam waaw bu ñu fàtte it mille francs yi ngeen di barkeeloo par mois it incha allah am na xale yi nekk ci bunt bi di leen xaar ci loolu waaw